mbirum Ndella Madior Diouf nga xam ne nag moom moo nekkoon responsable pépinière bu euh, kër Yërmande gannaaw ba nga xamante ne nag jàppoon nañ ko ca jamono yële daal di jëloon ñaari bébé yi nga xamante ne nag dañoo feebaroon jamono jële nag daal di nañuy wàññeeku daal di ñëw yokk si limub juróom-benn bébé yi nga xam ne génne woon nañ fa woon ñu daal di ñàkkoon seen bakkan jamono jële nag juróom-ñett euh, bébé maanaam daal juróom-ñett ay tuut tànk ñoo daal di ñàkk seen bakkan jamono jële nag moom mi la di Ndella Madior Diouf ma nga ca loxo yoon moom boo sàgganoon noonu nag mën naa tëdd euh, giir dundam ndax euh, li nga xamante ne rek moom lañ bébé doon dund foofu te nga xam ne nag yenn ci ay enquête euh, jamono jëlee ña ngay def ay révélation yu méttee méttee élection présidentielle yi nga xam ne pouse nañ ko nag waa États-Unis ak waa woo ñoom nag nee nañ da ngay àddu kile di jiitu réew mi Macky Sall mu daal di amal élection yi ci date bi nga xam ne jàpp nañ ko muy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi la ñu daal di nekk te ñu ne dañ ko pousse ba fukki fan ak juróom ci weeru décembre 2024 ndax nee nañ mënuñ koo jàpp ci mois d'août bi nga xamante ne màggalu euh, maam borom ak li nga xamante ne moom mooy euh, gàmm ba tax nag ñu daal di koy yóbbu euh, ba weeru décembre mu nekk ab mbir ba nga xamante ne ab mbir bu doy waar la ci li nga xamante ne rek moom mooy repousser ay élection Sénégal nag li nga xamante ne rek moom mooy licence wal fajiri bi nga xamante ne daal di nañ koy nangu daal di coupé woon internet bi leen lundi ak mardi ba tax nag gis nañ ne rek yenn ci ay sénégalais jamono ji la ngi laaj licence li nga xamante ne rek moom mooy Walfadjri nekk télé askan wi Walfadjri bi nga xamante ne nag ki nga xamante ne moom mooy ministre de la euh, communication Moussa Bocar Thiam moom moo ko daal di euh, tëj daal di nangu seen licence définitivement mu nekk ab mbir bu doy waar waral nag ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu communication ak information ne dinañ toog euh, benn bés sans presse maanaam une journée sans presse moom mooy yoot ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy yëngu ci wàllu information ba tax nag jamono ji la daal boo sàgganul Sénégal jamono ji la mi ngi traversé ay ay euh, guddi yu bëri see seegul gannaaw ba ñu reporté élection yi te waa États-Unis di addu kile di njiitu réew mi ak waa CEDEAO ngir mu daal di amal ex euh, li la di waa euh, élection yi ñenn ña nag di wax nag nañ leen delloo waa wal Walfadjri li leen di seen licence ndax kile di Cheikh ñas nee na à partir d'aujourd'hui lu toll ci deux cent personnes ya fay liggéey danañ dem chômage